jaaxle jeex na ci Touba ak li ko ci wàllu tabax ak kan GIE Maam Jaara construction fabrique de briques technologie espagnole nekk fële ci Touba ñaani di liggéey briques yu dëgër wér te wóor ne client taamu nañ ko ndax birig yi ñuy liggéey dafa wér te wóor te dëgër daanu sax taxul briques yu toj gaaw leen a gaaw jokkoo ñoom 77 435 52 62 wala ngay war 77 818 09 52 am na brique uddu douze vingt cinquante am na birig urdu quinze vingt cinquante am na birig akaloo vingt vingt quarante am na birig akaloo quinze vingt quarante di xeeti birig yu dëgër am qualité lool daanu sax taxamu toj suñuy birig suuf si dañ koy lay ba génn gere bi tege ko nele suñuy équipe bu sawar fu ngeen mën a nekk ci tuubaa ak di ko wër dañu indi birig yi njëg xiwal te mérité GIE Maam Jaara ay ndaw yu jóge fii ci réewum Sénégal dem ba réewum Espagne jëlee fa machine bi indil leen ko ànd technicien espagnol yu sawar te xereñ te mën liggéey bi ku ne xam ne diwaanu Touba bëri na ci carte yoo xamante ni ndox ma dafa saf xorom GIE Maam Jaara defal nañ ci birig bi moo laal ci loo xamante ni ndox ma am xorom mënu ci moom dara entrepreneur yi yéen ñi tabax gaaw leen a gaaw seeti GIE Maam Jaara suñuy adresse Touba Niani route de Aliya téléphone 77 435 52 62 wala nga war yaatil donga yi xëyu toolam a jaara moo sellal donga yamu daaroo